waaw lëb la lëb <laughs> fan la. sa të të waaye lëfi sëñ bi rek mat a ñii ay Baye Fall lañ ñi ay Baye Fall lañ Sénégal quoi ñii ñooy Baye Fall yi ñoom ñoo war a dugg ci kër yi daal yore ñii ñoo yore kaaraangeeg Serigne Touba gi kaaraangeeg sëñ Mountakha gi di dóore ci ci ci biti ak di dugg ci kër yi génnee xale yi kenn du watu ñii daal ñooy Baye Fall yi ñii ah jërëjëf.